de parler on avait décidé mm-hmm. mais lu ne ci yoon tamit xam nga moom amatuñ ci doole sañ-sañ bu bëri mm-hmm. euh, yi ñu ngi def ay commentaire ñu ngi dox li ñuy wax tamit bëri na amul ci mais mm-hmm. yi parce que dem ci yoon du noppi quoi nga xamal ñu un peu Bril dafa porter plainte non non Bril ak Dieyna ñoo ànd porté ji plainte te bi ñuy jàpp Dieyna aussi yàlla dogal ni moom kuréel ñoo ànd ñu ne ko ki nga àndal nii moom mooy sa moom mooy moom mooy moo ne ci ginnaaw li li la dal yëpp quoi donc imaginer le choc boobu nit ki am quoi donc alhamdulilah tamit moral bi cool mi ngi mi ngi si jàmm bu baax a baax. Mm-hmm. et puis actuellement nii mi ngi dox ci vraiment ci lépp luy. tax mu génn foofu noonu ñu ngi koy ñaan léegi léegi mu génn fa muy famille am di famille Diena euh, ñëpp a ngi ci dox pour que incha allah affaire yi calmé mm-hmm. ko euh, jëlal nañ ko téléphone am. Mm-hmm. benn 12 max pro. Mm-hmm. Euh, ak caabi auto Chrysler quoi. yëpp moom moo ko moomoon boppam. si si si si non non Chrysler bi nag boobu du otoom quoi. client autopril hmm. parce que autopril société bi muy liggéeyal ñuy jaay oto quoi donc souvent day day business tuuti affaire oto yi tout donc mhm. c' ça quoi. Mhm. yéen nag coow li nii lu mu tourné nit ñi di wax Bril da doon nekk ak Dieyna da doon génn na moom da ko doon euh, exploité. Mhm. wax ji dem na ba ba ba jaram xaw a yàqu un peu am ah, nit ñi ñu ngi wax Bril Bril Bril loolu nan ngeen koy staff bi nan nan ngeen koy dundee instant bi situation bi. bon vraiment dañuy dañuy déglu souvent sax rek quoi parce que am na daanaka yàlla lay def quoi man moom dañ ciy ree maag surtout sama benn cousin de classe. dañuy ree ci affaire yi quoi parce que li ñu lay wax c'est pas tellement que da ngay gis ne lii bon c'est pas fondé bon nit ñu mal intentionné wax wala nit ki nga xamante ni xamul dara quoi dëkkuñu comme gars yi ñuy wax ñoo dëkk dëkkuñu. jëy naa déjà nee nañ daf ko dafa dëkkoon ci kàr noose Pavel dëkkul ñu ko donc ci biir enquête bi xanaa feeñul ne Dieyna am ñaari nit donc ñu saa fi ñu nekkoon. Mhm. nga yi donc dañuy dañuy wax lu leen neex tu vois. Mhm. oui mais li a xuus ci carrément ci affaire yi. Mhm. Euh, parce que mu ngi si ay voilà nii nii nii Dieyna brûle nii dugg ci toom comment même daf may jaaxal comment logique bi ci nekk ku xam na ko c'est pas amul secret quoi. donc mën nekk comme ànd góor ah, comme ñëpp ah, ko àndal rek njëriñ ko. waaw jëy naa peut être si njëriñ la Bril ah peut mais Bril tamit njëriñ na ko bu baax parce que tamit euh, ci yàlla defee mu am tolof tolof dem ci génne kan ban label moo ko moo ko jël kenn jëlu ba Bril moo ko jël ba tey vidéo mbokk na ci ñi nga xamante ni ñu ngi koy suivre sénégalais safoon nañ ko ginnaaw tamit moom vraiment ku am talent la quoi ku am talent la yàlla def seen liggéey ñoom ñaar ànd bu baax a baax ñu dégg ko ci li ñu musique tey tey tey tey tey tey vidéo jéy naa génn ah tey waroon na génn ci vendredi bi donc benn clipam nga xamante ni Black Rexna moo ko def on a dépassé des millions. Mm-hmm. donc nag njëriñante moom côté yëpp la quoi. mais ñuy wax ne Bril mm, da doon exploité xale bi. ah xale bi da ko doon jàppale ak yooyu noonu est-ce que loolu tamit dëgg la. <laughs> parce que tey gis nañ benn article bu bu sale boo xam ne ci biir la wax. ne waaw waaw comme comme gisee da ngay rey que da ngay xam ne li ñuy wax nii. Euh, ci xool ci yàlla. dafa mel ni bril moom amul liggéey amul xëy amul gont alhamdulilah dam naa ñëpp yàlla may leen suturaal man waxuma tamit euh, encore une fois manager u bril la mm-hmm. mais tamit li may wax tam dam ci xool yàlla ah mm-hmm. vraiment dam ci xool yàlla bu baax a baax donc ñoom ñaan ñëpp yàlla mi ngi leen di suturaal bu baax a baax a baax suturaal na leen bu wér mm-hmm. voilà bril tey ku ku ku ku gumbawul ba même boo gumbaa sax dégg nga même boo tëxee sax waaw waaw may wax ne Bril buñ ko déggee mis à part way bi muy nekk di def beatmaker bu mag la Sénégal day defar ñoom ay bastion buñ ko gisee it yu bëri moom moo ko def moom moo def bit bi bu ñu gisee leen ñu naan dafa am problème xaalis naa moo koy entretenir ak yooyu noonu dafa ñuy xaw a caaxal si si mais nag yàlla buñ suturaal na suturaal biir mën na suturaal Dieyna foog ne moom rek àndu ndaw la la woon mën na bu jëriñ lu bëri njëriñ na ko lu bëri Dieyna peut être njëriñ na ko lu bëri man loolu doom loolu laa gis quoi loolu laa jàpp. est ce que histoire bi am ngeen am ngeen lu leen ci bett tuuti. ah vraiment imagine nga ànd ak nit mu ne la kaay porté di plainte ngeen dem porte plainte. Mhm. ngeen dem ñu leen ñëwaat leen jox leen résultat ngeen ànd ñëw yéen ñaar ñu ne la ci ngay àndal te ki ngay liggéeyal la ki nga jàppale la donc ñëpp la perte mais donc xale la peut-être dafa juum quoi loolu kese moo ci nee incha allah. su ma léegi nag suma la laajul lii ñi ñi bëri dinañ posé wu question parce que tudd nañ ci turu Marichou tudd nañ ci ñoom ñaar dañoo nekkoon relation amoureuse xale bi infidélité la koy reproché loolu lan ngeen ko gisee histoire boobu tamit. Euh, man man déjà man déjà dama koy leeral ba mu leer quoi. Mhm. nekkuma ci wax ay ex la ak ak ak copine Bril ni ñu doon dundee quoi. Mm-hmm. infidélité bi ñuy wax. léegi euh, man mun ma ci xam dara man man ab Bril du ay relation amoureuse am dama ci am ay limite quoi. Mm-hmm. waaw aussi que ex aussi ki mu nekkal. Mm-hmm. c' ça quoi. mais loolu gëwuma gëwuma tamit euh, dara mënul justifier liñ def nii. dara mënul ko justifier en fait la la donc affaire bi fu mu toll dossier bi parce que ñu naa mbiri ñu ngi koy ñaan mu retiré plainte tam mu bañ ak ay conditions la si teg kenn xamul ñu ngi koy gis tamit loolu est-ce que c'est vrai aussi. non ñun ñun vraiment ñu ngi toog muy sonni jéem vraiment. mooy mère bu baax ak paa bu baax. Mhm. Euh, famille Bril euh, ak ñëpp quoi ay frère Bril ak sœur ñun ñëpp a si dox pour am jàmm am quoi. Mhm. mais dafa des que ni rek euh, du du du duñ ko bëggee quoi li may wax yoon dafa am wàllu affaire bi. Mhm. daf ci moom sax dèjà gisoon ngeen ni yow gisoon ngeen ni dañu waroon wax mais la tax ñu parce que dañ ci am limite. c'est ça quoi c'est ça mais pas bañ a retiré wala tri voilà quoi dañ ci am limite sax <laughs> lan mooy état d'esprit bi instant bi ak coow li. Oh, waaw mi ngi mi ngi kii nag de vraiment man je pensais que <laughs> ba jeexul. dina jeexul mais mhm. am na lu ko metti mhm. comme Sénégal yëpp ñu ngi masaw tamit di baal ak sunu mbokk yi. ngi seetaan ak euh, fanam yëpp. vraiment. Mhm. donc di di baaloo ñëpp ak loolu loolu la quoi. ci xam nga ñu tudd la ci ñu tooñ la rek dafa metti ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp d'accord ni yow dañ la tooñ loolu leneen la mais vraiment ñu tudd la tamit ci li nga xamante ni du dëgg quoi loolu tamit euh, vraiment lu metti la mais comme ñu ngi baal ñëpp àq di baal ñëpp àq aussi <laughs> kon daal su ma mënee tënk li gis lépp ci ci ci ay wax lu bëri du lu dëgg waa du ma ne lépp lu dëgg mais lu ci gën a bëri ñu ngi koy waxee noonu d'accord kon dans tout ça Bril mooy victime bi moom la ñu jël ah loolu loolu loolu sénégalais yi ñoo ko wax pas moi quand man moom moom moo wax ni kii mooy victime wala kii wala juge bi mooy décidé xawlu kanam der nit ñi gis nañ ba PV mi man man man yi xanaa kay dama bon da ngeen ma sonal ci ITV yi rek ngeen sonal ñu il faut que ñu wax donc moo tax ñu wax ah mais li ngeen gis yëpp lañ ci sax mais am na nag ay fenn vraiment yi nga xamante ni dañ ko cee nas comme li nga wax léegi pour salaire yi am nañu maa leen tensionné ñu jug pour victimiser wu wala lañ ko naax ah, wala kii di justifier wu lim def loolu rien ne justifie ay affaires yi nga xamante ni mi ngi ci yoon nañ bàyyi ba mu jeex rek incha allah lépp dina leer. incha allah euh, kontaan nañ ci ci woo jot la déjà parce que affaire yi moom ah, ñun ñu ngi gis oh. ni c'était bien ngeen ngeen expliqué te man tamit oh. may ma faveur bi ñëpp ñuy ñu bëgg wax ak Bril bu ma amee manager am dafa mel ni Bril moo wax donc euh, ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal déjà. man voilà voilà yàlla baax na. ok merci beaucoup ok